ñëw ci fu jara ñëw fu jara ma doon wax ni ci français dama ne ce qui se mesure à ce certains se mesurent à Serigne Touba alors que ils n'arrivent même pas au bas de ses souliers <laughs> d' accord nga. est-ce que jërëjëf hmm? jërëjëf. au maanaam waaw maanaam euh, boo xoolee xasaayit yëpp sëñ Tuubaa sax mi ngi wax ne bil muntaxaa bi ngi ñaan ci barke bu muntaxaa ñun nañu wax ne sëñ Tuubaa wax rek ne bil muntaxaa wax ji jeex.